Une halle circulaire dans tout l'éclat de sa beauté architecturale, splendeur qui nargue bien le temps. Un chef-d'œuvre de l'art aux allures oniriques, édifié en plein cœur du quartier du plateau de la capitale sénégalaise, entre la gare ferroviaire et le port autonome. Le marché Kermel est l'un des symboles qui nimbe le vieux Dakar depuis plus d'un siècle et demi, tel un anneau aux couleurs mosaïques. Classé site historique, ce lieu de commerce doit sa renommée à la place qu'il occupe dans l'histoire de l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française. Au commencement, vers les années cet espace était utilisé par les colons comme dépôt de produits alimentaires périssables. C'est en 1910 que le marché fut construit et devint le premier marché de Dakar. Plusieurs rues du centre-ville de Dakar débouchent sur le marché Carmel, du nom déformé de Louis-Jean Kernel, un gouverneur français brièvement cité dans les annales de l'histoire du Sénégal. C'est Kernel qui a construit le marché. Mais on a un problème de date. Il y a certaines qui disent Mais la vraie date, c'est en 1903. Même il y a des historiens qui disent que Michel, le calife général des Mourides, il a passé par là pour aller en exil. Moi, j'ai été témoin, j'ai vu l'escalier qui était là, là où il a passé. Donc c'est un marché typiquement historique. Pour ceux qui n'ont jamais visité Carmel, venez. Nous allons franchir ce grand portail voûté pour découvrir ensemble les merveilles qui se cachent à l'intérieur de ce beau bâtiment, mais aussi au niveau de ses alentours. Dans cet univers coloré, arômes et senteurs secoudoient. Le marché est bien compartimenté. Les vendeurs sont installés sous cette charpente selon leur spécialité. On y propose des produits Viande, poissons, fruits de mer, fruits, légumes et épices de provenance diverses. les clients ont l'embarras du choix. ñi fi nekk ñu ci ëpp seen tool la ñu yor nga yor sa tool di ko liggéey di ci béy xam nga ni nga koy soxla li ngi soxla ci produit bi produit bi li muy laaj muy salaat bi muy carotte bi muy lépp newe bi muy concombre bi xam nga li muy laaj pour cafka bi nekk ci biir nga am ko mu nekk qualité pour togg pour nga mën ko gis ci togg bi parce que nag ay yenn certains pomme yi pont yi euh, bi fruit bi moom dina ci am loo xam ne li obligatoirement loolu moom duñ ko béyee ci Sénégal bitim réew lay jóge ci Les artistes et les artisans occupent le pourtour de Kermel, dans des étals traditionnels où ils exposent divers articles. Dans ce bric-à-brac, des œuvres d'art nous plongent dans l'Afrique antique avec ses masques et symboles forts connotatifs. Vanneries, sculptures, peinture perlerie les artisans de Kermel rivalisent d'ingéniosité. ay pièces la yoo xam ne vraiment tubaab yi bëgg nañ ko xam nañ ko parce que c'est une culture africaine vraiment bu de produit yu jóge ay ay ay Zaïre Congo wala ay Gabon ay Nigéria yooyu def yeneen partenaire ñoo koy indil. am na fi pièce bu jar 2 millions am naa fi pièce de million am naa pièce de 500 000. am na pièce de trois 300000 ay pièces yu raar la. man ay collier laay defar comme collier ngeen di gis sama ginnaaw. yi ay gaamu jaaro la ay jaamu collier. yi ay collier bassan la ko tuddee ko xam rek Mali lay jóge mooy moom moom bu ma gën a jege sinon perle miyuk yi am na yooyu France lay jóge. Le plus beau coin de Kermel est visiblement l'endroit dédié aux vendeuses de fleurs du tournesol de la rose d'Inde en passant par la marguerite entre autres variétés. les fleuristes embellissent bien cette ruelle. yii yëpp importé la rose yi ngay gis ni marguerite yi ngay gis euh, bu weex ba marguerite la bu jaune ba la marguerite ak rose yi ak sapsifil yëpp importé la. Mais derrière ce bel achalandage, qui part si bien Carmel, se cache une triste réalité. Le marché perd en attractivité, de façon progressive. Les clients et les touristes ne viennent plus en masse comme ce fut naguère le cas. amatuñu ay clients ndax tubaab yi ñoo ëpp li ñuy ñoom ñoo xam fleur dëgg ñu ëpp li ñuy jënd fleur tubaab amatu fi benn tubaab amatu fi Dakar surtout Dakar amatu. bon njaay mi nag moom léegi dafa dafa yàqu carrément parce que nu mu dexewoon bu njëkk ak léegi ça fait deux mois bon xam naa peut-être bee doxul rek. ak tamit ñàkk xaalis bi si réew mi nit ñi talatuñu lekk ba suur tal yàpp sax taluñu ko léegi waaw juste mais Kermel bu njëkk ba ak léegi moom ça fait deux moom. La fermeture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor serait l'une des causes de la chute observée dans la fréquentation touristique à Dakar de manière générale d'après les artisans. léegi aéroport bi luñ ko luñ ko toxal def ci joué parce que les gars yi soo xoolee aéroport bi sori na au lieu que ñuy ñëw ba Dakar. ñuy dem côté Diass côté Mbour côté moo leen gën a jege parce que des fois da ngay gis ñu nga xam ne suñ ñëwee escale la ñuy def maximum une heure de temps lañ daan am dañoo doon ñëw si ñun fii moo ëppoon accessibilité ñu ñëw jënd vite fait delluwaat. Pour le délégué général de Kermel, l'aspect sécuritaire doit être pris en compte pour expliquer la situation. bokk na ci lii daq tubaab yi nag mooy sàcc agression bu metti bi tourisme bi fi doon ñëw tourisme bi sàcc yi dañ leen a génne dëkk bi turu dëkk bii dafa yàqu comme ni ma la ko mën a waxee. turu dakaar dafa yàqu. même tubaab yi fay ñëw ci hôtel bi ñu daal foofu la ñuy foofu la ñuy yem xanaa ñu génne tuuti rek ak oto bi mais wàcc amatu xam nga client bi bu nekkee ci hôtel bi bu wàccul client bi toog ci ci kermel du ko gis. mun nañu ñëw ci oto bi léeg-léeg romb ci oto bi ñu ne leen fii mooy marché Kermel alors que git bi ni leen marché Kermel a ngi nii marché Sandaga ngi nii fii mooy lii fii mooy laa ñu ñibbi seen hôtel su ñuy jënd ay produits hôtel bi day obligé mu mu léegi hôtel boo gis da ngay gis galerie ci ci suuf hôtel bi loolu moo ko indi tubaab bi lu mu soxla da ngay wàcc ci ci suuf hôtel bi nga jënd ko nga yéegaat booy dem nga dugg ci sa oto bi avion bi mu jël la yóbbu. Le marché peine ainsi à retrouver son attrait d'antan, malgré les efforts consentis par les autorités pour lui insuffler un nouveau souffle après l'incendie de 1993. Un sinistre qui a marqué Carmel au fer rouge. Le bâtiment était complètement consumé. Les dégâts matériels évalués à des dizaines de millions de francs CFA. L'origine du drame jusqu'ici reste indéterminé. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il a brûlé. Certains disent que c'est l'électricité, les autres disent que c'est un foudre. Mais ce qui est sûr, c'est brûlé. Ceci avait poussé le pouvoir central à fermer le marché pendant trois longues années. Kermel fut par la suite reconstruit à l'identique et réouvert en 1997 grâce au concours de la coopération luxembourgeoise et de l'Union européenne. C'est d'ailleurs pour libérer les emprises et permettre à chaque victime de l'incendie de disposer d'une cantine moderne à moindre coût que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar avait décidé de bâtir ce centre commercial. Un immeuble R 3 qui surplombe Kermel. Bâti sur 2950 mètres carrés et scindé en 438 cantines. Le coût des travaux est évalué à près de 4 milliards de francs CFA. L'infrastructure, prête depuis 2016, n'est toujours pas fonctionnelle. Ceux qui doivent en bénéficier n'en veulent pas. ñun vendre d'objet d'art du pour cent. xam nga lan moo koy dundal mooy entourage bii bu fekkee ni ministre de tourisme mi ngi may dégg wala mairie ville de Dakar mi ngi may dégg wala son excellence président de la République mi may dégg entourage la war a defar. ay ay ay cantine yu méngoog jamono yoo xam tubaab bi nañ fi mën a ñëw di promenade lii tubaab mënu see dugg ba ci promenade. soo xoolee maa fi gën a tuuti la place te man sama place presque mot na 2 mètres te fële place yi 1 mètre la c'est un mètre longueur un mètre 50 place yi tuuti quoi. am na cantine yu mag ñu jox ko commerçant yi yu ndaw yi ñu seet ñoo xam ne ñi bokkuñ ci marché bi ñu jaay leen loolu mooy solution bi. la mairie de Dakar Plateau par rapport à l'imbroglio autour de l'ouverture de ce centre commercial. Les compétences qui sont dévolues à la commune grâce à l'avènement de l'acte de la décentralisation se limitent uniquement à la gestion du marché Carmel. Par exemple, les cantines là-bas, pour les retrocéder à des commerçants, le coût est exorbitant. Dans ces cantines la commune du plateau n'est même pas partie prenante, du moins à l'origine. Donc on avait constitué une, une sans la commune du plateau qui bénéficiaire des produits domaniaux et des taxes journalières. Donc ça pose problème. Du côté de la mairie de Dakar, l'on donne des assurances. D'après le chef de division des halles et marchés, les négociations avec les commerçants se poursuivent. Ils envisagent même de commercialiser une partie des cantines. Le centre commercial fait 438 cantines, si ma mémoire est bonne. Il y a 122 cantines qui sont attribuées gratuitement et le reste sera commercialisé. Que si vous voyez au marché Kermel, les gens qui sont aux alentours, quasiment, je peux dire, 80% de ces gens ne sont pas des impactés. si on les enlève là-bas, Euh, nous, on a dit qu'on va les prioriser pour la commercialisation. Et c'est là d'ailleurs l'occasion d'appeler euh, une collaboration avec la commune de Plateau parce que nous, on ne peut rien faire à ce niveau. C'est eux qui peuvent nous appuyer. En attendant l'ouverture du centre commercial pour désencombrer cette partie de la capitale, Kermel se contente de satisfaire ses rares clients et visiteurs. Nonobstant les difficultés qui grèvent le commerce et le tourisme sur place, le marché garde son charme intact et continue d'émerveiller ceux qui le contemplent. Et un peu, j'ai dit euh, donc que c'est un peu steampunk, c'est un, cette tout euh, avec les, euh, vitrines rondes, c'est extraordinaire. C'est un peu comme un cirque ou quelque chose comme ça. Le mythe de Kermel, marché Toubab, tend à se briser. La clientèle devient de plus en plus locale. De temps en temps, je viens au marché Kermel. Euh, j'y trouve des produits frais, à bon prix, plein de souvenirs. Quand on est là, euh, comme je suis âgé, bon, ça me fait penser hier. Les grands restaurants du pays s'approvisionnent à partir de Kermel, car certains produits, ils ne peuvent les trouver ailleurs. Des générations de marchands se sont succédés dans ce lieu de négoce. Beaucoup de vendeurs occupent aujourd'hui des cantines ou étals qui appartenaient à leurs parents. C'est la fin de ce numéro. Merci.